Fatou Sarr Sow ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, yow sociologue nga ni ki ba couvre fa bi commencé am ay euh, manifestation yu euh, jóg ci presque ndakaaru yépp ak ci diwaanu Mbour lan moo war a mën a expliquer li ni mel. waaw loolu mën nañ ci am ñaari gis-gis bi jiitu bi. mooy ay xaleel ñoo génn ci mbedd mi wane seen naqar li ñu wax moo di kenn teelu teelu ñu leen ko yëgal Euh, ndaxte xëy na ñoom buñ leen ko teeloon yëgal ñu mën jël seen ay matukaay loolu mooy wax ju jëkk ji euh, waaye bu ñuy xoolee ba ci biir li ñuy wax li di wax c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase li prétexte la rek que dafa euh, amoon lu yeneen yu leen doon gën a metti mooy bi bi Covid bi amee ba tey dafa am ay naqar yoo xam ne dañ ko ëmb xol par exemple ñu ne ñu yaakaar nañu xaalis bi ñu waxoon dugal nañ ko fa ñoom gisuñu ko fan lañ ko dugal ñoom tamit seen koom-koom dafa dafa wàññeeku pour ñenn ñi ci wax yooyu moo tax ñu jóg bo mais xale yooyu peut-être aussi dañuy jottali ay waxu mag parce que am na ci ay xale yu ndaw yoo xam ni euh, ñooñu tolluwuñu xëy na tolluwuñu si liggéey donc xale yu ndaw yi tamit génn nañu euh, du mag ñëpp a génn xëy na dañu dañu jottali li ñuy dégg nit ñi di ko wax wala mag ñi di ko wax ak ñeneen ñi di ko wax euh, man li ma ci yaakaar rek moo di tey lii dafa wane rek ni Sénégal dafa féewaloo féewaloo bi am ci réew mi ak xaajaloo bi am ci réew mi parce que feebar bi tey dafa waroon tax ñun ñëpp tey ñu booloo parce que feebar bi dëgg la mi ngi jeexal àddina bi mi ngi rey nit ñi boo gisee dëkk bu mel ne Brésil tey nërmeelu na ndaxte président wa dafa xëy ni feebar bi amul ba tey léegi li leen dal dal leen Trump mi tey États-Unis li leen dal moom moo xëyoon ni feebar bi amul euh, feebar bi mi ngi fi loolu moo tax waa kër docteur yi nga xam ne parce que président bu waxee waxulul boppam waa docteur kër docteur ñoo ko wax fi ñu war a aw dama yaakaar ni ñooñ nag ñoo war a génn wax ak sénégalais yi ba ñu xam ni lii du waxu caaxaan ñi ko gën a comprendre mooy di ñu mel ne sëriñ si ku mel ne sëñ Babacar moom ten na xam lu mu lu mu doon ba mu jël ay mesures yi mu jël ku mel ne sëñ Mountakha tere na léegi nit ñi di su jóot tere na léegi euh, nee na siyaar bi dañ dañ koy wàññi dañ koy dakkal ba sa kanam kon xam nañu lii ñëw du du jàmm Euh, léegi nag dafa am ñoo xam ne li nga xam ne bu lu mel ni bu amee ñenn ñi dañu jël seen li la ñu ëmbaloon yëpp ñu génne ko ci dafay nekk prétexte comme on dit am na ñoo xam ne ànduñu ak Macky Sall kii dañ ciy wax am na ñoo xam dañu am seen propre projet orientation dañ ciy wax mais loolu yëpp dafay wane ni Sénégal mu ngi jëm ci yoon boo xam ne baaxul parce que am na fu nit ñi war a wanent nit ñi bu ñu waree jàmmaarloo dañu war a jàmmaarloo mais lii nga xam ne tey bu jógee si ñëpp lay dal ñëpp waroon tey booloo ñu xool naka la ñuy def même ci biir kër docteur da gis ay médecins yuy génne di wax ni ñoom ànduñu si ñi nga xam ni moom la autorité la santé yi def loolu dafa ne aussi war nañ ko jéem a seetaat parce que tey ñëpp waa kër docteur yi la ñu war a la ñu war a jox euh, bopp parce que ñoom ñoo xam li li xew donte wan nañ ko ñi jàng xam nañ li ñuy wax lu mu doon gis nañ feebar bi ni mu ni mu yokkoo ak fi mu nar a jëm naru narul baax euh, kon bu fekkoon ñooñu xëy na bàyyi na leen bu président waxee tamit dafa mu mu toog ak ñooñu ñooñ seen bopp tamit joxe seen ay explication defe naa dana gën a yombal yombal mbir mi Euh, parce que ëllëgam si biir tamit bu fi nit ñi di dee comme ay weñ tamit bu ëllëgee nguur gi la ñu wax ni ñoom ñooy responsable kon dañu war ñoom tamit am nañ droit jël seen responsabilité euh, pour situation actuelle bi ñu fexe ba moo bañ a jéggi dayo parce que boo ëppee loxo rek kon bu boobaa je crois que dana lu ñu naq di ñun ñëpp dina dina am. madame Sow dugguleet njiitu réew mi euh, daal di def li ni mel di couvre-feu yan pexe lañ war a teg tey jii ngir rek askan wi mën a nangu mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ngir jële fi mbas mi. waaw moo tax man la wax pexe yi ñu mën teg mooy wax nit ñi lu dugg ci seen nopp ñi leen a mën wax lu dugg ci seen bopp mooy waa kër docteur yi parce que ñooñu ñoo war a gën a fës wax mbir mi nu mu demee expliquer niñ koy expliquer expliquer fi ñu commencé fi ñu ñu jëm première vague bi ni mu mel ak tey ni mu ñëwee parce que dafa ëpp loxo parce que boo gisee ñu ne la ñi ñi ñi feebar bi dal ci benn weer ful nañ ko juróom benn yoon diggante novembre ak décembre nga xool ñiy de ful nañ ko fukki yoon ak ñett kon nga xam ni loolu lu lu lu lu grave la lu dangereux la euh, mais buñ leen ko waxee dëgg la nag mesure yi jël mënul neex kenn fu mu jaar dana am fu mu fu mu méttee moo di ci sa koom-koom waaye njëriñ loo fekkee comme ni ko olof yi di wax da ngay wuti liggéey waaye liggéey boo fekkee ëllëg euh, te tamit euh, ñu ñu fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi wër di wax wax yu kàddoo yu juuyoo tamit mooy naxal xelu nit ñi bu ñuy waxee tey ñu ne ñu xëy suba dem waxe ji leneen. je crois que euh, démocratie itam wax waxul ni dañu war a àgg foo xam dañuy sënkër bi euh, askan bi parce que lii affaire dund ak dee la affaire dund ak dee bokkul ay affaire waxu ay économie waxu ay politique waxu yeneen wax yi donc il faut que responsabilité bu ku nekk sa àquli laay taala nga xo nga nga xool ko euh, seet lañ ci war wax mais tamit nag ki yore jëkkal kuy bi moo di président de la république moom moo war dem xoolaat tooge nam xoolaat ni muy waxee ak ay ndawam naka la ñuy dem ba jël en charge xale yi la parce que mag ñiy wax tamit ñoom génnuñu si mbedd bu génn di am xale yu ndaw yi ñooy génn ñoom ñooy yàq ñooy def leneen te mën na am sax xale yu ndaw yooyu di génn boo leen xoolee seen at àggul sax fi ñu yaakaar ne ñooñu ñooy liggéey parce que ñëpp lañ ciy boole ëmbaale leen si kon euh, situation tension moo am léegi ci réew mi parce que Covid bi yàgg na koom-koom bi wàññeeku na nit ñi am nañ ay problème frustration yooyu nag moom mooy génn te lii rek prétexte la rek pour que ku nekk jóg wax li nga xam ne naqaru xol so ëmb póotu xol bi amoon kon mais kenn moo ko mën a saafaraal moom rek moom moo ci moo ko mën a def dafa war jël ay responsabilités parce que ëllëg lu fi am itam moom la ñuy wax kon tey tamit du méttee war na jël ay responsabilités am mais daf ci war a ànd ak du àgg ci xelu nit xolu nit ñi parce que wax day àgg ci xolu nit ñi du jóg rek taxaw ni lii ak lii nii laa koy defee mais euh, campagne d'explication bi je crois que euh, weesuwul nañ fexe ba waa kër docteur yi ñoom tam génn waxal ak nit ñi lu mën dugg ci seen bopp. Fatou Sarr Sow ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. Fatou Sarr Sow bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sociologue. Alors, au premier jour du couvre-feu, des manifestations ont éclaté presque partout à Dakar. Qu'est-ce qui peut expliquer la réaction de ces jeunes? on peut en faire une double lecture. D'abord, en écoutant ces jeunes, c'est l'expression de, de, frustration, de frustration qu'ils qu ont couvée depuis très longtemps, liée probablement à, à cette situation de, de pandémie et qui a amené euh, des complications dans la vie des personnes avec euh, l'accès difficile au travail, aux ressources, etc. Donc, ce sont des jeunes dans certains quartiers. Euh, c'est lié au fait que ça touchait leurs activités premières, comme certainement le commerce euh, informel. Euh, mais surtout, ils ont décrié le fait qu'ils ne soient pas préparés pour prendre pour prendre leurs dispositions. Mais si on va beaucoup plus loin, pour moi, c'est l'expression de l'absence de cohésion sociale dans, dans ce pays sur euh, une question qui aurait dû euh, amener un consensus, parce que c'est la vie des personnes qui est en danger. Le président de la République a pris une décision et des mesures qui ont été dictées par les spécialistes de la santé, peut-être qu'il faudrait que ces spécialistes de la santé apparaissent davantage dans la communication pour expliquer aux populations quel est le bien fondé de cette, de mesure. Euh, mais en même temps, quand je parle d'absence de cohésion sociale, ça aussi un prétexte euh, pour euh, des raisons ou d'autres que des personnes qui ne partagent pas le, le même point de vue utilisent cette situation pour euh, pouvoir exprimer aussi leur désaccord avec le régime euh, en place. Mais ce qu'il faut surtout, en tout cas, retenir, c'est que le président de la République doit en tirer des leçons pour être d'abord plus proche des jeunes, pour davantage de communication euh, et comprendre, parce que les, les, jeunes ne disent pas qu'ils sont contre le couvre-feu, ils sont contre le fait qu'on les ait mis devant le fait accompli sans les préparer. Bon, bref, tout ça peut-être ce n'est qu'un prétexte euh, pour exprimer des frustrations qu'ils ont Mais je pense qu'il va falloir mettre l'accent sur le fait que cette situation est une situation extrêmement grave. C'est des vies humaines qui sont en danger. Et c'est les Sénégalais dans leur totalité qui devraient prendre conscience et plus de responsabilité pour qu'on puisse ensemble faire face à cette, euh, à cette Covid-là. Euh, qui est en train de décimer euh, une population peut-être pas la plus importante du point de vue du numérique, Euh, mais c'est des ressources humaines qu'il faudra mettre du temps encore à, à rebâtir, à, à, construire, qui sont en train de, de partir. Et donc, euh, nous allons vers des lendemains extrêmement sombres. Il y a des pays qui sont en train de s'effondrer, des pays qui ont dénié euh, la COVID, comme le Brésil, par exemple. Nous avons vu ce qui se passe aux États-Unis quand Trump a été contre en disant que la COVID Donc, dans le temps du, du déni plutôt en disant que n'existe pas, cela ne touche pas, c'est moins que les Européens. La question, c'est l'anticipation par rapport au futur, avec toutes ces mutations de ce virus-là. Je crois qu'il faut en appeler au sens de la responsabilité de tout le monde, du devoir de tout le monde, mais surtout du chef de l'État qui doit être, euh, prendre la température, de comprendre ce qui se passe au niveau de cette population, de ces, de ces jeunes qui sont, frustrés pour différentes raisons, être davantage à leurs écoutes, être avec eux, mais surtout, je crois, euh, à faire, euh, la parole aux responsables de la santé, euh, puisque des gens comme Seydi et autres, les gens leur font confiance, qu'ils aillent expliquer. Parce qu'on entend aussi d'autres sortes de cloches, de même professionnels de la santé qui sont contre, euh, qui ne sont pas d'accord avec euh, la décision de, de, de, des autorités de la santé. Et ça aussi, c'est une question un peu euh, compliquée dans ce pays. Il euh, y a des moments où, à mon avis, le pays doit prendre une direction et qu'on laisse ceux qui gouvernent euh, prendre des décisions étoiles et maintenant quand ça ne marche pas que les gens réagissent mais on entend trop de sons de cloche y compris dans le même système de santé pas ceux-là qui sont aux affaires mais d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce que les mesures préconisées par leurs confrères mais je pense que l'ensemble des Sénégalais doivent se fier aujourd'hui nous n'avons pas le choix c'est les spécialistes de la santé qui doivent donner les directions à faire et, et les religieux l'ont compris depuis euh, tout le monde salue aujourd'hui ce que Babacar euh, si et a fait. Et aujourd'hui, ce que le, le calife général des Mourites a compris, en demandant aux fidèles d'arrêter un certain nombre de pratiques et en se mettant lui-même à, à l'abri, en mettant euh, une suspension aux IR. Mm-hmm. Donc, c'est ça, en fait, je crois, mm -hmm. euh, moi, l'analyse que j'ai faite de cette situation. D'accord. Euh, Madame Sow, ce n'est pas la première fois que le gouvernement instaure un couvre-feu. Maintenant, quelle démarche pour une adhésion massive aux restrictions c'est d'abord, si on comprend ce que les jeunes ont dit, ils ont l'impression qu'on qu'on les met devant le fait accompli. Euh, c'est-à-dire, même si le président de la République a donné un, un petit peu l'indication, les indications au 31 décembre, en disant qu'ils peuvent aller, ils prendront les mesures de douane. il fallait peut-être deux ou trois jours avant commencer à expliquer qu'on va aller vers cela, parce que certains disent que oui, euh, la, la, mesure est tombée trop rapidement, qu'ils n'ont pas pu planifier ce qu'ils devaient faire. Bon, c'est pas pour moi, c'est les explications qui peuvent tenir, mais le fond de la question, c'est une frustration globale liée à un ensemble de pratiques euh, intérieures. Euh, il y a des frustrations sur la manière dont les 1000 milliards ont été gérés. Les gens n'ont pas compris où est l'argent. Est-ce qu'il y a eu une, une justice, une équité dans la distribution de ces ressources? tout cela sont des questions à voir. Mais donc, moi, la, solution, c'est que le président apprenne à parler davantage euh, à ces populations, à être plus proche, mais surtout qu'on donne la parole aux agents de la santé, aux spécialistes de la santé, qu'ils puissent convaincre les populations de la validité de cette mesure. Pat Sarsow, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes euh, sociologue.